wala bu gerte dagal ko non non non lu ma dama koy jëli dama lu ma bëgg dama koy jëli madame mii balaa bi ma ko bi ma ko koy doxaan léeg-léeg ma def naka su noonu mu bàyyi ma ne man su ma jooy du ma jooy man kese ma sama yaay ak sama ñu jooyandoo <laughs> waaw xam affaire xam nga da ngay nekk jeune xam nga affaire xale jàpp la xam nga ngay tëli tëli you know mais da nga xam ni am nga or quoi you know ma femme c'est genre mënu ma wax sax or la or dafa tuuti xam nga jamaa bu ñu booleeg or la ak beneen bagage xam nga bu yéemee xam nga donc xam nga xawoon naa ko ñàkk tuuti xam nga ma koy temps ma koy choc quoi parce que def yëfu xam nga yëfu booy yaa ngi xam nga mooy loolu